on va continuer à dépendre de l'extérieur et mm. dépendre de l'extérieur mm. mooy sénégalais yi wala ñun ñi euh, dañuy dee rek mais fi métti tamit Binta bëri loolu ci Sénégal parce que boo génnee tamit ci wàllu cherté dund bi tamit am na yeneen yeneen poñ jafe yi nga xam ne métti euh, wàllu inondation bi dañ ko dañ ko jëlale euh, mais tout récemment tamit autre actualité bi nga xam dafa métti loolu askan bi muy réfectionnement wu hôpital Aristide Le Dantec ñu fas yéene ci tibb lu toll si ñetti hectares jaay ko nga xamante ni mooy travaux yi ñu bëri également ànduñu ci mm-hmm. ni syndicaliste yi jug na njëkkati ay kàddu ni loolee ànduñu ci mm-hmm. ñu gis ni tamit par la suite ki nga xamante ni moo di jëriñ bi ñu dénk wàllub santé euh, di Marie Xemes yëkkati moom ay kàddu nga xam ne ñu ñaawlu nañ ci ni ñoom duñu ay vampire bay teetaan ay nit di dee comme ça ci mbedd bi euh, euh, coowal boobu noonu yëpp am ci ci ci hôpital Aristide Le Dantec également di may dalal directeur du FONSIS pour mu expliquer un, un peu comment ça s'est passé montage financier et tout bi mu waxee presque ñoom ñooy jël les trois quarts mais état bi dafa bëgg a bëggul bàyyi rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy tabax. Mm. Euh, parce que comme li hôpital la état bi def ci bëgg contribuer. ma ne ko yéen tous les grands projets de l' état yi ngeen ko jox. Mm. ñu exploité ko avec leur argent après ñu def système bioti ñu exploité ba un certain temps lu tax hôpital bi mm. pourquoi ngeen di jaay les trois hectares alors que euh, les les employés nee nañu. Euh, bi ñuy bi présent ñëwee dem nañu won ko un projet d' établissement. ba ba un sénégalais génn euh, bëggoon ko tabax. Mhm. ci xaalisu boppam. Mhm. mais pourquoi cette précipitation. mu ne ma mhm. noo sénégale boobu wax noonu amul woon de amul woon dañ dem ba ci biir xam ne amul financement. te lii mënu woon a xaar ma ne ko léegi yéen. hôpital bi da ngeen waxoon aussi da koy def phasage. da ngeen di tabax fii dugal fii génne fii. mais ngeen jékki saay rek bu mettez tout le monde dehors. kenn comprendre parce que ce qui se passe dans ce pays Penda defe naa euh, euh, Dantec moom moo ci mujj rek. mais c'est toujours comme ça. Mm. dañuy def des choses yoo xamante ne du am benn transparence mm. du am benn évaluation. Mm. on met des milliards de francs CFA. et puis bu ñu soxlaa évaluation doo ko am. Euh, du suñ foofu kese. la dernière fois su fekkee sax dégg nañu ci kàddu directeur bi Thiandou muy rassuré quand même ni ku ci nekk dinañ la euh, secteur bu nekk di nga déménager wu ci benn hôpital ñu insérer la ci beneen hôpital plutôt euh, daal di lay ak sa personnel ak yëpp maladie tamit comme ñu ngi yore ku nekk sa dossier dinañ la woo ku ci nekk xool say rendez fan nga ko war a mën a defee mais ba tey tiitaange askan bi seen xel. yaa gën a xam ne dañuy jëm ci kanam c'est un drame social. waaw ñu ngi préparé wàllu personnel yëpp kenn wu leen. Mm-hmm. donc dañoo toog leen seen kër on va vous payer sur trois mois. ñu amul embauchement de xam naa ne chômage lañ. moom trois mois. Mm. ñooñu fa toog des années kenn embauché wu leen. Mm. ñu fay la trois mois après fayuñu la nak ngay def ak sa njaboot. drame social la malade yi ñu jël yu euh, jël leen yóbbu leen ci ay hôpitaux ak ay cliniques c'est le début pour ñu ba ñu faire euh, passer la clameur populaire et après ku nekk dañ lay wax ñibbil sa kër état amul moyen téye leen ñooñu bu ñu fekkee wéeruñu fu ñu jëm. dañuy dee. waaw ah, kon ñun suñu état ñun moom ban problème la moom. mais suñu état lu mu lu mu fi nekk lu mu warum xaalis sur le dos du simple du du du contribuable sénégalais l' état ne respecte pas dañuy jël ay décisions nee naa leen TER bi ñu fi indi waxuma baaxul mais ce n' était pas une priorité. Hmm. dugal ci ay millions ay milliards yoo xamante ne ba léegi xamuñu effectivement c' est combien le montant yenn yi ñuy imposer les sénégalais moo warul boo ñëwee ci réew da ngay waxtaan ak askan wa xool askan wa lan la soxla. mais yow doo dem fay bitim réew ñoo di ko loo xam ne soxlaagu ko mm. terre bi lu baax la sénégalais yi soxla nañ ko parce que amuñu moyen de transport mm. suñu amee moyen de de transport qui est très révolutionnaire ñëpp ko saluer mm. dañ ciy dem mais avec y avait des des des préalables tey jii bu ñu defaraatoon les rails l'économie locale yi ñu rey entre euh, dans le Sénégal loolu la ñu waroon commencer bu ñu defaroon les rails sénégalais yi mën a amaat tuuti suqaliku waat ci côté localement développement à la base. Mm. defe naa loolu moo gënoon. Mm. mais jël ay milliards dugal ko ci société boo xamante ne pratiquement neen demoon na sax ba ba ba dee nga ñëw recapitaliser ko au nom de quoi on ne sait pas. jënd nga avion boo xamante ne ce n'était pas prioritaire président war na am avion mais ci circonstances yi mu ko jëndee amul foofu c'est le flou total. Mm. parce que avion dañ ko defaraat ba mu ni palaas ñaata lañ ko jëndee prix bi ñu won ak prix final bi xamuñu ko. ak yeneen ak yoo xamante ni sénégalais yi. won nañ ko président que li nga ñu waxoon ak à l'arrivée li am mhm. moo tax vous avez vu ce qui s'est passé au mhm. local. Mhm. vous avez vu ce qui s'est passé au au au législatif. vous vous avez vu ce qui s'est passé au mois de mars. ay signaux yoo xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy envoyé président de la république. parce que nag euh, bu ñu demee ba ci ba ci jëppaandaw la président de la république kese la. 2024 c'est le rendez-vous la présidentielle d'un homme. et de son peuple. loolu dinañ ci ñëw léegi mais ci loolu ci ci yi nga xamante ni euh, nga ko léegi Binta euh, ci local yi ñu génn waaye Yewwi bi Wi euh, gagné pratiquement mairie yu bëri ci réewum Sénégal mu nekk quand même une toute première fois ñu dàbbaliwaat ko également ci législative yi xaw a installé li nga xamante ni moo di la cohabitation à l'Assemblée mais ci loolu mairie yi waaye Yewwi Askan Wi ci kaddu ki nga xamante moom moo di Bakary Diatta di maire Yewwi Askan Wi foofee ca na dafa yëkkati ay kaddu def ay révélation ni depuis bañ leen installé ba tey ñoom jotaguñu li nga xamante ni moo di seen fonds de dotation et de concours destiné aux maires alors que ni waa Benno Bokk Yaakaar jot nañ li nga xamante moom moo di seen fonds mu mel ni kon li nga xamante ni moom li ngi doon jot ni gagné nañu waaye seen toog du yombee noonu ndax dinañ leen ko métital commencé na euh, feeñ bu fekkee ni kàddu yi nga xam yëkkati na ko loolu si avéré waaw mais loolu kay bu yeboo ñu xam ne ñëpp waroon nañu ko Euh, centrale euh, ñoom ñoo yor euh, les collectivités et ay démembrement de l'État lañu mais seen fonds de dotation yi ñu leen di jox ak les fonds de concours fu muy jóge ci État bu ñu demee tey jii ba ñoom ñu gagné parce que local yi bu fekkoon te ne natt nañ ko en terme relatif tey jii bu nekkoon présidentielle jàppal ne dañuy dem deuxième tour mm. dañuy am second tour de la présidentielle mm. bu ñu demee ci législative yi même bu fekkente ne ñoom ñoo gagné mais gis nga ils n'ont pas président nag yàgg na ko commencé xam nga ne ñoom déjà nee nañu il veut un troisième mandat donc du leen ko yombalal ñoom dinañ gagné mais dina leen sonal trop parce que ñoom bu ñu amul moyen bi nga xamante ni loolu la ñu war a yoree seen communauté parce que askan wi dañuy dem ba ci biir commencé naan ah lu tax ñu fal la. waaw wala ñu ne maire bi liggéeyul te fekk na dañoo bloqué seen i fond fekk na dañoo bloqué seen ay mbir. Mm. on a vu qui s' est passé avec Khalifa Ababacar Sall. Mm. mairie de Dakar. de Dakar nee na lii laa fi fekk. Mm. ñëpp la ñu def. mais malgré tout moom lañ jël yóbbu ko ci kaso bi. Mhm. exécutif si boppam moom moo jël may mise sur tout bu fekkente ni bëggul nga liggéey doo liggéey xam nga les maires de Benno Bokk Yaakaar vont travailler mhm. et puis ñee bu ñu liggéeyul y a d'autres échéances Sénégal euh, ñi ñi la faloon dañ naan ñi kii duma ko falaat. defante bi dafa teel nag Binta. ah mais euh, deux mille vingt quatre douze mois moo ci des deux mille vingt quatre douze mois moo ci des te président euh, li mu perte nii local ak législative. da koy tàmbalee dabu léegi la koy commencé dabu. mais président dafa bokk jaboote ñëpp donc boo defante bi. moom moom c'est ça le problème mais moom defante ci defante rek la nekk. on a un président boo xamante ni dafay defante parce que dernière fois bi mu euh, li na ci rencontre bi mu bi mu bi mu rencontré les nouveaux députés. Mhm. da leen di wax on on m'attaque on me fait ça on ça. mais apparemment yéen buñ buñ réagir. c'est pas ci rencontre boobu sax Binta fi nga teg sa baara am na solo noo ko jàngatee déjà 82 députés yu mu recevoir ñu bëree nee nañ président en tant que députés loolee charte réew mi da ko dàq waru leen woon recevoir euh, ba pare ñu ne député mu recevoir leen tamit ci biir palais bi euh, donc xamatuñu ndax c'est le président qui a reçu wala c'est le chef de parti déjà mu nekk problème noo jàngatee lu ni mel ak notamment euh, nii lu tax euh, Sitor Ndour ñu tëj ko euh, alors que ni Ousmane Sonko ba tey mu ngi ci mbedd bi ñeneen bokk na ci kàddu yi nga xamante ci gise gi 82 députés soulevé nañ boobu problème ci kaw kii di président Macky Sall. président de république dafa nekk ci reconquête ba léegi assemblée nationale pareegul de il n'a pas dit son dernier mot je pense que dafay yem ci 83 députés yooyu di am ay majorité absolue non il veut sa majorité confortable parce que xam na ne bu demee nii nee na euh, euh, au niveau du bureau de l'Assemblée bu ñu amee quatre vice-présidents quatre yeneen vice-présidents yi si yeewi lay jóge bureau bi yëpp euh, ñoom ñooy bokk mm. loolu mosul am dans mm. l'histoire mm. du parlement sénégalais mais président loolu loolu du ko nangu il va tout faire recevoir ñi nga xamante ne déjà ñoom la ñoom mooy ñoo ñooy ay député jéem a xool aussi ni muy euh, xëccaate yeneen député yi nekk si yeneen parti yi moo tax je me demande si yeewi askan wi am na vigilance parce que am na un jour ma recevoir maire euh, de Anne ma ne ko est-ce que am ngeen euh, maîtriser ngeen suppléants yi falu il faut ngeen am maitrise boobu si ñoom parce que su ngeen ko defulee xëj na aussi ñu ne ma wa mu ne ma il répondu oui bu fekkente ne ñoom ku ci dem feneen tamit traître nga ma ne ko du noonu de ma ko président kaful reetaanul de te est-ce que tamit dem boobu dina yomb est-ce que tamit du seen xel dafa dal parce que ñu dégg ci kàddu Ousmane euh, seen si si si mooy dañ ni euh, kenn amul droit rallier dem fekk ji li nga xamante ni moo di la mouvance présidentielle est-ce que du loolu tax peut seen xel dal ñu jàpp seen ay député kenn du ci dem ñaata député ñoo bàyyi xam nga bu yàgg bi dañuy wax quand tu euh, ton parti de député mm-hmm. mais ñaata ñoo dem moom benn si moom Déthié Fall def na ko jóge na réew mi. Mhm. mais taxul mu jóge son poste de de député boo waxee mu ne coalition moo ma fal. Mhm. ñoom tam bu ñu waxee ñu ne coalition ñoo ma fal benn parti faluma les gens ne restent boo demee si bennoo dañ lay jàppale tu oublies la jurisprudence Aïda Mbodj Fada bi ñuy xëccoo le nu de la présidence du groupe parlementaire démocratie et libérale parce que kenn ki dafa faraloon ak nguur gi finalement ñoom moom état bi dafa def forcing jox ko ko. moo tax ma ne la doole bi mi ngi ci état fu mu toll nii ñoom ñëpp bu ñu bëggoon ñëw si mag Sall dara du leen ci fekk même bu ñu signé ay ay contrat avec des chartes ak yooyu yëpp duñu ko respecté. mais bu duñ toll nii def loolu bi dafa mel ni mooy sa fin de carrière politique de. parce que gis nañu même bi mu ko defee tout récemment ñëpp nee nañ Pape moom jeexal déjà ralliement Pape Diop bi. li mu demee euh, euh, fekk ji la mouvance nee na euh, parce que xam na ni cohabitation mënul baax ci nguur. Mm-hmm. et moom il tient d' abord à servir son peuple loolu la avancé comme motif. Mm-hmm. Pape Diop man man man affaire bi ça m'a fait pas l'effet d'une surprise ah. moi je savais euh, buy dem si Macky Sall lay dem parce que i va prétexter que li mu wax ko nee na bëggul ay blocage institutionnel et pas il va dire aussi que je suis un libéral Macky Sall est un libéral et puis li mu wax comme euh, blocage institutionnel xëy na mun na nit ñi mun mun nañ ci d'accord mais on a vu que Pape Pape Diop aussi euh, moom député la woon. treisième treizième législature bi le plus grand absentéiste de la de la treizième législature c'est c'est Pape Diop Pape mi nga xamante ni moom euh, il était dans le bureau poli dans le bureau de l'Assemblée nationale di xëccoo euh, place huitième place bi avec euh, Mame Yaye Albis bi nga xam ne si ñoom la bokk koo xamante ne doo liggéey ah te nee na il est parti parce que bëggul blocage institutionnel mais mm-hmm. négocier wul dara xam nga ne loolu ku la wax loolu en politique boppam lay nax négocié wu ma dara sa euh, loolu mooy lan xam nga ne euh, bi demee euh, fexe ba Macky Sall am majorité absolue à l'Assemblée nationale ça veut dire que ci suuf am na yoo xamante ne waxante nañ ko. lan lañ ci war a mën a xaarali ci yow ci la ñu war a mën a waxandi. waaw ñu bari ñu ngi naan Pape Diouf est-ce que du moom mooy nekk président assemblée nationale. ñu bari tamit ñu ko jox kii di Mimi Touré. est-ce que waaw Mimi Touré xam nga ñoom par exemple. dañu si ñoom ñaar sax a nekk profil bu baax bi. Mimi moom nee nañ bu demee assemblée ndax présidente de l'assemblée bu bu histoire. mais Mimi Touré moo war nekk président assemblée nationale c'est lu ma lu ma lu ma jàpp parce que euh, wala mu nekk premier ministre rek une de parce que bi ñu demee aux élections de 2017 je pense la tête de liste nationale Abdallah Abdallah Dione. moo nekkoon premier ministre après mi Touré soit mu nekk président assemblée te man dama gën a jàpp que euh, ah président président assa euh, kii la ko digoon euh, ah présidence assemblée nationale mais tu sais en politique il ne faut jamais dire jamais et puis ah il y a des calculs il y a il y a il y a tout ça il y a des réglages de dernière minute président xam nekkul il n'est pas seul dans son camp c'est une coalition de coalition ku nekk am ngay ambition yooyu yëpp mu war leen gérer la surprise du chef on peut pas faire voilà la météo politique xëy nañu xaar rek ba xam président si kan la teg loxoom mais tey jii lan mooy say attente si ñoom parce que treizième bi moom vraiment dina li amoon ci treizième législature bi bëggatuñ ko gis ay député ñuy tuumal ay passeport diplomatique ay faux ak yu ni mel te depuis ñu ngi dox seen ay soxla ci mbedd beeg yu ni mel donc lu ni mel moom bëggatuñ ko gis ci quatorzième législature bi et que tamit euh, kii di Ousmane également euh, jot na euh, am ah, jot na xamle lu ni mel parce que nee na ñi ngi doog am assemblée. Hmm. parce que li am ñu dem ba euh, euh, opposition am pratiquement euh, les mêmes nombres de députés que que que le parti au pouvoir. Mm-hmm. loolu mi ngi soog am di. opposition boo leen boo leen dajalee fi mu ne ils sont à 82 Benno est à 83 mosul am bu fekkente ne Macky Sall fexewul li ma la wax nii te nañu seetaan l'histoire nous donnera raison. fekkee xëccul yeneen député yi ba am majorité confortable mm. Macky Sall dootu mën a def lu ko neex mm. parce qu'il ne sera pas seul dans le bureau de l'Assemblée l'opposition sera partout looy defati si si ci euh, jàllale projet de loi du doo am majorité mécanique bu la koy defaral. Mm. il faudra faire avec l' moo tax Ousmane Sonko xam naa ne mi ngi soog am assemblée nationale du lu jóge fële rek ñu daal di yëkkati loxo voté mu jàll mu mu sox mu mu nekk yitte askan wi nekkul yitte askan wi na nekk yitte du chef rek. ñu mm. daal di voté. Mm. moo tax mu jàpp ne assemblée bii ñu am nii bu fekkente ne bàyyi nañ ko ci nomenclature bi mu nekk nii. opposition boo xamante ne forte bu siéger à l'Assemblée nationale dinañ am assemblée nationale bi nga xam ne moom la Sénégalais yi di xaar. Mhm. assemblée yoo xamante ne ay députés du peuple ñoom ñoo fay nekk. Ah. mais boobu ba léegi on a toujours eu des députés du président de la République. et les Sénégalais ñoom ñan ñoom ñaari camp yëpp la ñu envoyé message. Mm. président danga nga bëri da bëri doole on t'a donné trop de pouvoir wàññi nañ ko. Mm-hmm. jox nañ ko opposition bi. ñu xool ndax opposition bi nag dinañ taxawal askan wi tamit bu ñu nekk dans des calculs politiciens au niveau de l' assemblée nationale parce que askan wi mi ngi leen di xaar parce que échéance bu am doole mi ngi taxaw. Ah, askan bi daal fu mu ne dafa xaw a def eh, yëf jaxase daal leen jaxase ñoom ñaar taxaw di seetaan daal loolu. mais askan jox kii xaaj jox kii xaaj. moo tax pend askan wi nee leen nañuy faale askan wi. Mm-hmm. ay transhumance ak. ay diwoo ay liiwoo yooyu yëpp jaru ko mhm. asan euh, askan wi mhm. la majorité silencieuse toujours mhm. ku falu doo ko faale da nga koy fàtte mais le dimanche de l'élection ku nekk si ñoom rek ngay euh, ngay déglu de ñoom ñooy yom ñoom dañuy dañuy récupérer waat seen souveraineté de wane na ñun kese la donc euh, askan woowu noonu peuple bi wala ku falu bu leen daan bu leen doon déglu bu sonn mais duñ leen déglu bu ñu faloo rek dañ leen di fàtte. dañ leen di fàtte. ñu toog seen wet ay des faucons topp naa leen askan wi lii lépp a baax président lépp a neex. comme mm. Abdou Diouf. Mm. mu ne woon yëgul ne juróomi dërëm mu meew am na. parce que il mm. <laughs> euh, noonu ngay euh, président naan am na fi. parce que ñi parce que ñoom dañu entouré ak ñu ñu war a. entouré dañu entouré ak ñoo xamante ne seen intérêt moo leen tax a moo tax président buy wax ne man kenn du ma défendre. kenn du wax ne président liggéeyul vraiment liggéey na à côté infrastructure liggéey na suy wax ne kenn du vanter mes mes réalisation mm. c'est parce que ñi mu fal nekkuñu fi pour vanter ses ses réalisations mm. ils sont là pour leur propre intérêt seen mm. intérêt bopp lañ fi nekk gis nga leen fu mu toll nii déggatoo kenn koo woo yow mii di def sa émission sax doo ko jot téléphone mm-hmm. pour mm-hmm. inviter ko mm-hmm. parce que ku ci nekk yaa ngi xool aussi fan ngay ban point de chute ngay daw parce que ay njéeréer rek la ñu waaw ah, gis nga transhumance comme ni ñu koy waxee des prairies vertes rek fu tooy ñu tak ah dinañ ci xam dara ngi toll nii moom il commence à tourner le dos au président. alors Binta nag dernier question yi ci dernier question